wa situation dekk bi lima ma wax dama koy waxat te tay la ci gëna mëna taxaw pour wax ko parce que nak dafa am solo ñun ñëpp ñu defaat gestu taxawat xolaat fan lañ jëm fan lañ joggé d'abord ak fan lañ jëm ak lan mo xew te musu doona am Sénégal Sénégal dafa musa a bu dafa musa nek dekk bo xamne dañ ko naw ci si région bi mais dans tout le monde entier ñu naw ko ñu respecté ko ba saa yoo voyager koo dajal nga ne ko je suis sénégalais da lay nuyoo ñaari loxo parce que d'abord c'est un pays de la teranga c'est un pays de dialogue un pays de consensus boo xam ne ñëpp ay waxtaan Ablaye tey su ma jógee fii ñëw sa kër di nga ma taajal añ di nga ma jox ataaya ma naan loolu la ñu xamee Sénégal dëkk boo xam ne ñëpp ay jàppalante doon benn bokk ndey bokk baay mais suñu demee ba dëkk boo xam ne nit ñaari nit bokk nañ kër bokk benn bool bi nga xam ne moom la ñuy lekk chaque jour te du ñu wax du ñu tuddante ndax politique xamuñ ko woon dëkk boo xam ne dem nañ ba nga xam ne dañuy indi affaire u dañuy indi affaire u dëkk boobu Sénégal xamuñ ko woon dëkk boo xam ne tey kenn rusatul wax lenn yi loolu loolu du sénégalais dëkk boo xam ne kenn respectatul mag loolu du jikko sénégalais dëkk boo xam ne kenn respecté wul kilifa diine loolu xamewuñ ko Sénégal suñu demee nag ba loolu di am ba ñuy mën di taxaw di nga xam ne ay infrastructure yi nga xam ne moom lañ gën a yaakaar muy BRT muy TER muy ay université muy ay école muy ay banque ñu koy toj di ko taal xamewuñ ko woon sénégalais kon baax na ñu taxaw seetlu taxaw seetlu xoolaat suñu bopp xool fan lañ war a jëm est-ce que fi ñuy jëm yoon bu baax bi la suñ fa yeggee kenn du rëcc kenn du rëcc parce que tey suñu taaloon bus yi taal euh, teer bi euh, taal banque yi soo xëyee soo bëggee dem jëli xaalis nooy def doo am courant sa kër doo am ndox sa kër ci lan nga ne ci lëndëm nga ne ci coono nga ne ci souffrance nga ne kon est-ce que loolu kenn dina ci rëcc du ci parti au pouvoir du parti de l'opposition du société civile nous ne sommes pas donc war nañoo mën nous affaire bi lan qui indi ak lan politique Le Sénégal l'a crise bu tension sociale mais régler sans pour autant moi une ingérence ba députés. député assemblée nationale française di am lu ñuy wax ci suñu biir Sénégal le président Macky Sall nekkul na ñoom ñoo ko fal sénégalais ñoo ko fal problème bu ñu mën a régler Sénégal fii lañ koy régler doomu Sénégal ñooy toog régler ko mais benn doom warul jóge fële di am lu muy wax wala di am lu muy instrumentaliser ba ay pouse nit mu jëral leen ñu taal seen dëkk ñoom du ñoom ñooñ di koy wax duñ taal seen dëkk kon bu kenn nangu ay nit nekk sa ginnaaw di la pouse pour taal sa réew réew mi nag ñun ñëpp mako ko ken kenn ëppalu ci wu ken ken dara ku nekk danga ci am wàll wàllu boobu nag na ku nekk respecté wàllu moromam nit ki nga xam ne dafa liggéey ba ba son dem banque def prêt lepp auto garé ko buntu kërëm nga fekk ko taal te yoonam nekkul ci politique loolu est-ce que yoon la loolu est-ce que Touba bi nga xam ne mu ngi nii Touba Mbacké Serigne Ahmadou Bamba lu fi def ci réew mi liggéeyal Sénégal mu jaral ko sacrifice bu ne amul manifestation politique bu am Touba ñu di manifester biir Touba di panneau xamewuñ ko sénégalais c'est une décision que nous saluons parce que kilifa noonu lay doxee parce que dañoo nekk ci réew moo xam ne kenn kan mooy sa bay kenn xameetul kan sa yaay kan ken xamatul kan moy kilifa diina ken xameetul kan moy président de la république donc Sénégal institution forte lañ ko xamé woon ay kilifa suñu waxé ñepp nangu and ci d'accord ci problème xet ken kenn mësu xam diggante séré rek joolaa diggante séré rek peul xam nañ lépp li ci né diggante ageen ak jàmbooñ xam nañ li ci né loolu yépp brassard culturel boobu ñu bugg ko yàq ndax lan ndax politique dama ne non non du politique objectif bi leneen la du leneen lu dul taal réew mi du leneen lu dul taal suñu université yi du leneen lu dul taal suñu banque yi du leneen lu dul taal suñu centre commerciaux yi mais duñ ko nangu on fera face et quels que soient les sacrifices on sera debout et on restera debout pour protéger le Sénégal pour protéger la République mënul nekk ay étudiant parce que man suis nekk université am fa ñaari diplôme ñaari master 2 ma jële ko fasek Respecter université bi nga xamné ne ma am loolu représentant d'étudiant faculté représenté au niveau du conseil national de la jeunesse xam exactement lan moy comportement étudiant à un moment donné après 2014 étudiants yëpp tok né dañuy def li nga xamné ne le nouveau type d'étudiant dinañ kas suñu droit dinañ défendre les étudiants mais duñu saga, duñu yak duñu tal et depuis lors vous pouvez le constater et vous pouvez le confirmer que bob ba université malgré yengu yengu wi am gisoo étudiant tal, gisoo étudiant saga, gisoo étudiant toj mu nek lu am solo étudiant lu nek xew na université nit dee na université deewati université étudiant kasna kas droit bah, récemment en 2018 le président de recevoir les représentants d'étudiants mais nous ñu ne avons nañ nous avons ñu ne taal nañ amphithéâtre ñu ne été nañ pavillon De ñu Nous avons nañ ay été ñu président waxtaan ak ñoom ñu ne ok mais bëgg nañ lii président ci lañ augmenté bourse yi ci lañ wàññi ticket yi mu mesures lu ay mesures yu am solo étudiant donc lii su nous mënumaa détails parce que nous ma juge nekkuma ci justice enquête baa ngi ci en cours nañ bàyyi ba xam enquête bi lu muy lu muy lu muy révélé mais monna, naa waat ne lii du comportement étudiant parce que dafa am lu tax ma wax ko bi affaire bi amee am na ñoo xam ne ci manifestant yi ay bandi sax laa leen di considérer dañ doon laaj fan mooy pavillon B dañ doon laaj fan mooy rectorat mënuñu sax prononcé wu rectorat lan lañ doon wax rectorat fan la ne kon ñii dëkkuñu université parce que ku am bac un mois ça yoo ko université di nga xam fan la rectorat nek di nga xam campus pédagogie fan la nek di nga xam campus social fan la nek mais dafa am lu ci gëna graw li nga xam né depuis 1957 plus de 200000 étudiants yi jaar fac lettres yépp fi ñu def bureau d'archives ñu ñëw tal ko loolu suñu ma étudiant moko def du ko gëm tant que teguma ci sama bopp loolu nak lay wo état taxawaay biñ ci war am nañ ko def parce que université Anta Diop du université APR du université Benno c'est une université du Sénégal qui appartient aux Sénégalaises et aux Sénégalais donc liggéey biñ ci war def pour identifier les acteurs les bandits qui ont causé ces actes criminels nañ ko def man loolu rek la ñuy xaar te étudiants yi nga xam ne les représentants étudiants, seen sortie yëpp loolu la ñuy demander donc man dama len di rejoindre ci taxaway bobu ne len ne aussi taxaway biñ ci wara def dinañ ko def et pression buñu ñu tek a état pour que ñu identifier les acteurs dinañ ko dinañ ko def et dire que plus jamais ça plus jamais ça parce que éducation enseignement supérieur mo réew moo yor donc lolu su amul rek rew bu normal lu ngay gis kon ñi objectif bi moy normalal rew mi parce que li ñu ciblé attaqué ko mooy li nga xam ne mooy poumon wu Sénégal mooy doxal Sénégal mooy ñoŋal Sénégal mooy yor réew mi mais duñ ko nangu taxawaay biñ ci war a am dinañ ko am ak lu mu jar dinañ ko def parce que Sénégal jar na ko ñoom Mamadou Dia ñoom Senghor dañoo xeex ba Sénégal doon li ñu doon tey donc ay doomu Sénégal ñooy taxawaat pour Sénégal doon lu mu doon doon ëllëg donc loolu laa amoon li ma ciy wax di ko naqarlu di ko ñaawlu jàpp naa ne sénégalais bu nekk ak foo mën a far war ngaa mën a ñaawlu li nga xam ne xew na te ku nekk war a xam ne lii dinañ taxaw ba ëllëg du amate ci biir ci biir réew mi